doom bi njaboot bi sët ci kër gi bër gi démb suñu armée yi def na ci lu ne gàmmu gi ren def na ci lu takkoo takkoo takk ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen ñoo xam ne bi tey si ñu leen doon lim tey fi la fanaan ku ci mel ni tey ku ci mel ni waa wax naa leen léegi def nañ ci lu am solo ku ci mel ni tey ñi nga xamante ne bii tey ñooy wàllu presse bi toog na suñu kanam liggéey bu leen liggéey ne ko suba ba léegi noppaluwul ku ci mel ni chef service bi sapeur ñëw na croix rouge ñëw na MDL GCO jogo def nañ lu ñu mën ci bis ku ci mel ni gendarmerie nationale suba ba léegi noppaluwul waaye am na ci ay services yoo xamante ne bii bi préfet convoqué CRD man dama ne woon ñii jaroon woon sax ñu ñëw ndax toog su say kanamu góor toog sa kanamu kilifa jël engagement te respecté woo ko mais kooku respecté woo sa kilifa mais respecté woo kilifa kilifa gi boole. préfet ñi ngi jégalu si kàddu yi dafa toll ni tey eh, li ñuy wax dafa nekk loo xam ne bii dañu dañ ko dund.

seen mbokkum julit mu wax Chérif Sidi Haydara moo leen di nuyu fii ci Guet Chérif eh, li ñu taxoon nag yëkkati waxtaan wi tey ay julit yoo xam ne dañoo organiser seen mbir mbiru diine boo xam ne yàgg na lool dégg ngeen ni ñu ko waxee ci njaal benn waxtaan wi ci jamono yu yàgg beneen ji 2000 ñu organiser ko ren bi ñu ko organiser dégg nga maam woo mbokk julit woo suñuy nawle woo suñu am ji jàmm ñoom ñëpp ñu toog nun nag dañoo dëkk ci réew mi soo nekkee ci état di def lépp sa devoir su set droit jotee war nga ko laaj parce que dañuy wax ne ku def sa devoir sañ nga laaj say droit ñu organiser gàmm gi fii ci Guétt Chérif woo suñu nawle yëpp ñu teew bon léegi am nañu ay doléance yoo xam ne bii nii ñaanoon nañu ko suñu doom bi nga xam ne moom lañu délégué woon mu nekk coordinateur bi biñ demee ba nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu su conclusion suñu suñu waxtaan mu ni leen ñoo ngi gërëm état bi te mosuñu jóg ci gërëm état bi parce que état lii li ñu waraloo ak moom yëpp ñoo ngi koy def état yi tamit li mu waraloo ak ñun mi ngi koy def gàcce ngalaama état boo mais nag nit bu toogee fu mu toog xamul li xew ci réew mi day sàkk ay ndaw ndaw yi ñoo koy dem ci ruq yi ak ruq-ruqaan yi mais ndaw yi nañ yor jikko yi lantinaire lantinaire du tëy diw yaa ngi dégg l'entraîneur dafay jàlle diw mais du ko téye kon bu fi préfet bi ñëwee dégg nga du suñu préfet mu ñëw ñu yaakaar ne moo fi toogal président de la république ñu am ay rëq-rëq yoo xam ne alors am na ci gàmm gi ñu war ko wax dafa war a am ak dal ak teey déglu suñu wax wax ji moo dégg am mboolem gàmm yi xew ci réew mi dégg ñu ni bu jàllee ñu ci seen biir ngërëmte ñu ni def ngeen nag waaye am na lu manqué loolu ayul ah ndox ñu defuñu def nañu mais am na lu ñu manqué loolu ayul waxoon na service de santé Croix-Rouge gisuñu ko wàllu ndox wàllu ndox doyoon na doy na leen ko njaboot gi fi ñëw lépp daanaka dañoo yendoo mar courant bi coupé na te loolu lépp keroog CRD bi dañu wax nañu lépp xëy na coupure sax xëy na ay la xëy na yooyu kooku bu tu jóg ci kan ci maa ngi ñëw foofu dafa mel ni bañ ñu waxee moom dafa mel ni loola doon bañ a dégg wala wala moom lañ joxoñ ñoo joxoñu ko préfet nekkul hydraulique nekku fa liggéeyu fa préfet liggéeyul santé préfet liggéeyul dégg nga euh, euh, nu mu tuuti euh, courant courant bi muy Senelec mais nag dañu jort ni préfet mooy ndaw Macky Sall fii ci Tivaouane nu ñu dëkk ci département Tivaouane kon bu ñu fi amee ay jafe-jafe ñu bëgg danañu ko préfet dañu ko sotti ci nopp ter préfet mais du préfet lañu ko wax dañu bëgg comme moo fi toogoon Macky Sall mu wax ko gouverneur de la région gouverneur de la région wax ko président la République président de la République loolu la ñu ko wax mais ñun waxuñu ko ni yow yaa courant bi wala yaa yor ndox mi wala yaa yor santé non non xam ne yor ko dañu ko dénk rek muy muy lantenaire bu ñu ko sotti digg na ko jàlle bu mu ko lok c'est ça le problème ba ñu ba ñu ko waxee pare dégg nga mu jóg foofu ba mel loolu loolu la doon bañ tudd ko mu jóg wicc loxoom dégg nga jóg yóbbaale sax dégg nga maam ah, sous-préfet yóbbaale dégg nga ah, sécurité bi bu maar di taal yàlla mooy dimbali ak suñu barke maam bu ko amee tojoon gannaaw kan mooy sécurité gis kan moo yor sécurité bi deful ñu fi kilifa dëgg moo neex yàlla dafa ànd ak dal la war a def lu ñu ko wax mais bu ñu ko waxee li ko neexul na ànd ak dal déglu li ñu ko wax. su ko dégloo dégg nga maam ba pare su demee dégg nga wax kilifa ga kilifa gi nag mooy seet mooy seet ak ñi mu délégué woon parce que Sénélec dañ leen a yónni Idriss dañ leen a yónni santé dañ leen a yónni mais du ñoom ñooy dañ dañoo am ay kilifa noonu dañ doon wax ñu wax ak seen kilifa loolu moo taxoon wax moom itam bu fekkee ak bi ñu def dégg nga am loolu daf ko naqari nun séqu noog moom dégg nga am luñu lu muy xottee sunu dégg nga orma di di di yàq suñu cérémonie naa la moom du du moo saafaral dañu koy wax mu wax ko kilifaam mu saafaral mais mu mënul saafaral dara ñaanu ko dara it ñaanu ko dara daal ko ñaanul